bëgg alquranul karim même su dee xale war nañu ko xemmeem loo war nañu ko bëggloo alquranul karim waaye sudee dee mag tam mënul jàng alquranul karim di ko nemmeeku di ko muraajaa lu dul nen maanaam dafa am mbëggeel ak cofeel ci alquranul karim nu ak mbëggeelam ak cofeelam ci alquranul karim di gën a baree rek noonu lay appee xamaas muy courage pour mën a maanaam di mokkal noonu lay appee courage tam ku di mën a am ay jotaay yoo xam ne ay jotaay lay doon yoo xam ne daf koy def ngir nafar ngir nemmeeku li nga xam ne mooy téere borom bi subhaanahu wa taala te saa soo xamante ni nit ki mi ngi gën a am courage ci jëm ci alquranul karim alaaqaam ak alquranul karim day gën a dëgër waaye tam ak ak jàngam alquran day gën a bari waaye tam ak mokkalam alquranul karim day gën a dëgër mu mel ni kon suñ doon xool alaaqa yu ñu boole ak alquranul karim muy relation yu boole ak ba ci njëkk mooy alistimaa mooy lan mooy ñu koy déglu ñu koy déglu kon alquran di ko déglu daf ci am solo lool qul uxiya ilayya annahu istamaa nafarun min aljinn wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alquran wa ana axtartuka fastami lima yuuxa te gis ngeen yonent bi alayhi salaatu wasalaam woona abdullah ibn mas'ud anhu ne ko damaa bëgg nga jàngal ma alquranul karim mu ne ko alayka aqra wa alayka unzil a aqra wa alayka ndax dama lay jàngal alquran te alquran ci yow la wàcc mu ne ko inni uridu an asmaa min gayri dama kaa bëgg a dégg ci keneen ku dul abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu nee na mu commencé di jàng sóoratu nisa ba yegg ci fi yàlla subhanahu wa taala di waxee ne fa kayfa ida jinaa min kulli ummatin bi shahid wa jinaa bika ala haulai shahida nee na yonent bi ne ko xasbuk mu ne fa ida aynaahu tazrafaani damaa mu ne ma siggi xool yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay bëtam di xelleelan roxam kon déglu Alquran dafa am solo euh, léeg-léeg sax Alquran bi ngay déglu dana def ci yow tasiir sax boo xam ne maanaam jeexintal boo xam ne maanaam léegi-léeg Alquran bi ngay jàngal sa bopp du ko def ci yow ñaareel ba mooy alqiraa mooy di ko jàng di ko jàng di ko jàng ñetteel ba mooy alxiwz mooy di ko mokkal euh, ñeenteel ba mooy attilaawa di ko jàng nag njàngin woo xam ne day dëppook benn ci ñetti maanaam martaba yooyu nga xam ne mooy maratib al al al qiraa muy at taxqiq ak at tadwir ak al xadr beneen bi topp mooy at tadabbur mooy di ko lan di ko settantal beneen bi ci topp mooy at tafsir mooy jéem a xam li yàlla subhanahu wa taala di wax ci alquranul karim te jëmee ko ci ñun moo xam ay atte la moo xam ay qissa la ah moo xam uh, uh, uh, lu mu doon ci loo xam ne alquran làmboo na ko loola ñu jéem ko lan xam waaye jaaree ko ci fànn gi nga xam ne moom mooy fànnu tafsir waaye ba ca mujj moy lan mooy al amalu bi mooy ñu lan mooy ñu jëfee kon loolu mooy relation yi nga xam ne moo ñu boole ak alquranul karim su ko defee bu ñu xamee loolu danañu xam ne kon faw ñuy déglu alquran faw ñuy jàng alquran faw ñuy mokkal alquran waaye tam faw ñuy jàng alquran ci jàngin woo xam ne dañuy sàmmanteeg ahkaamu tajwiid yi sàmmanteeg alwaqf wal ibtidaa ak lépp loo xam ne am njàng mu mucc ayib laaj na ko waaye fawutam ñu settantal alquran fawutam ñu jéem a xam li alquran di wax waaye gannaaw bu loolu yëpp amee itam faaw itam ñu jéem a jëfee li nga xam ne moom mooy alquranul karim beneen ba ci yi nga xam ne ay mabadi la ay principe fondamental yoo xam ne mënul ñàkk ci kii jóg ngir nam ma mokkal alquran wala kii jóg ngir maanaam tasbit dëgëral li nga xam ne moom mooy ak mokalam wala mu fas yéene muraaja alquranul karim ba ci njëkk mooy al ixlaas mooy nga sellal yéene ci sa diggante ak sa boroom ndax ku nekk xam na ne jàng alquranul karim jaamu yàlla la te jaamu yàlla mënul wér lu dul dafa nekk loo xamante ni lu sell la nga xam ne raxul bokkaale raxul ngistal raxul ndéggatal muy suma waaye mu nekk loo xam ne nit ki daf koy def ngir wut maanaam yiw yàlla subhaanahu wa taala rek ak sàkku ngërëmam ñaareel ba mooy at tawbatu wal istigfaar mooy faw itam ñuy tuub di jéggalu bàkkaar yi di dellu ci yàlla subhaanahu wa taala ndax bariwaana bu nit amee habitude di def benn jaamu yàlla taxoo ko mu toog benn jamono rek mu mel ni dañ ko koo tere mënatu ko def loola dafa bokk ci lu koy waral mooy maanaa bàkkaar te bàkkaar nag li koy li koy kafaara li koy effacé li koy fóot ba mu set wecc moom mooy lan tuub ak di jéggalu yàlla subhanahu wa taala kenn ci salafu saalix dafay wax mu ne xurimtu min qiyaami layl li dambin aznabtuhu sana mu ne toog xañ nañ ko maanaam julli guddi lu mat at wala weer suma juumul te dara taxul nee na lu dul maanaam njuumte boo xam ne defoon na ko digganteem ak boroomam moo tax borom bi subhaanahu wa taala xañ ko loolu kon bëri bu nit amee yéene ngir jàng alquranul karim waaye mu jëfe ko lool fekk la ko gàllankoor mooy ay lan mooy ay bàkkaaram kon faw ñuy tuub waaye di jéggalu borom bi subhaanahu wa taala ba ci topp mooy maanaam di ñaan di ñaan di ñaan yàlla subhaanahu wa taala ndaxte kat maanaam nit ki mënul def lu dul loo xam ne rek yàlla subhaanahu wa moo ko defal tawfiix dëppale ko ak loolu moo tax toujours mu bokk ci ñaan yi nga xam ne danañ ko baaxoo di dégg mooy yàlla boole ñu ci ñi nga xam ne dañuy jàng alquranul karim atraafal layli wa ana an nahaar dañ koy jàng ci guddi di ko jàng ci bëccëg waaye dañ koy jàng di jëfee maanaam ay atem waaye di taxawtam ci li nga xam ne moom mooy ay lan ay limitam kon faw ñuy bëri lu ñu ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu yombalal ñu maanaam nemmeeku ak jàng li nga xam ne moom mooy alquranul karim euh, beneen ba mooy faw tam ñu bàyyi xel ñetti appareil yi benn bi mooy al udun mooy nopp ñaareel ba mooy al ayn muy bët ñetteel ba mooy al lisaan muy lan lamin ñetti appareil yi ah moom ngay dimbandikoo pour lan pour jàng alquran pour mokkal ko moom ngay dimbandikoo pour dëgëral sag mokkal moom ngay dimbandikoo pour nafar li nga xam ne mokkal nga ko bu mu dëgër ba pare waaye su ko defee nag day day day day day laaj ñetti yii nga sàmm ko sàmm ko mooy lan sàmm say nopp ba doo ci déglu loo xam ne lu xaraam la sàmm say bët ba doo ci xool loo xam ne lu xaraam la waaye sàmm sa làmmin ba doo ci wax loo xamante ne lu xaraam loolu ku ci borom bi subhaanahu wa taala defal tawfiq ci loolu rek dana yomb ci yow lool maanaam nga mën a jàng alquranul karim waaye nga mën koo mokkal waaye boo ko mokkalee mu sax waaye yàlla xër ci jamono bu nekk nga koy muraajaa di ko nafar di ko nemmeeku waaye su safaan ba amee nag ah, bët yi mën nañ koo xañ yoolub xool alquranul karim ndax ay bàkkaar yu mu faggu nopp yi mën nañ koo xañ yoolu déglu alquranul karim ndax ay bàkkaar yu mu fàggu làmmiñ wi tam mën nañ koo xañ yoolu jàng alquranul karim ndax ay bàkkaar yu bari yoo xam ne fàggu na ko yàlla nañu si borom subhanahu wa musal te sàmm ñu ci aar ñu te defal ñu tawfiq ak taysir bu loolu weesoo euh, tom ba ci topp mooy euh, ki nga xam ne tey moom dafa fas yéene jóg pour jàng mokkal alquran lu tax may wax mokkal alquran toujours ndax jàpp naa ne dawra bi pour ñu mokkal la ak ñu wàcc te amaana tam du ñàkk am na ñeneen ñu ñu koy déglu ñoo xam ne xëy na bokkuñ ci ñu mokkal sax te bo wala tam bokkuñu ci ñi lan ci ñu wàcc kon yow mi nga xam ne da nga jóg pour mokkal alquranul karim wala da ngaa jóg pour dëgëral sag mokkal wala dangaa ngaa jóg ngir nafar su ma nee eh, dëgëral nag mooy ki nga xam ne mokkal na ba pare waaye mokkal gi nag xëy na des naa dëgër dëgg dëgg su ma nee nafar nag mooy ki nga xam ne moom mokkal na ba pare mu tasbiit mooy mu dëgëral mokkal gi ba mu dëgër waaye nag pour mu bañ a rëcc faw nag mu koy lan mu koy nafar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne waat naa ci yàlla mi nga xam ne bakkanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci moom maanaam alquranul karim moo gën a gaaw a rëcc ak gëlëm goo xam ne maanaam dang ko tënk bàyyi ko ci daaj ba nemmeeku woo ko joxoo ko lekk joxo ko naan ba soxla ko rek war a ñëw jëfandikoo ko ndax dang ko fa fekk déedéet doo ko fa fekk ndax da ko fekk mu rëcc wuti leneen lu mu lu mu suturloo noonu mu ne noonu alquranul karim moo gën a gaaw a rëcc gëlëm gu mel noonu kon yow mi bëgg a wala yow mi bëgg a dëgëral sa mokkal wala yow mi bëgg a nafar alquran faw nga am objectif boo xamante ni bu leer la ah objectif mooy mankat dama mokkaloon alquran dama kaa fàtte dama bëgg a delloo si sama mokkal mu leer wala mankat dama bëgg a mokkal fukki xisib ci alquran maanaam ahqaaf ba naas wala baqara balaa yuxib wala mankat kat mokkal naa alquran waaye am na ci diggante yoo xam ne nag moom xaw naa nëx des na te léegi dama bëgg lépp àndandoo ratax nekk genn ak mokkal loolu objectif la bu leer wala dama bëgg fii ak dat sàngam ma mokkal lu tollu nangam ci alquran donc faw nga am lan objectif boo xamante ni bu leer naa ñu la ci yow boo amee objectif ba pare dafa am li ñu tuddee al muqawimaat ad daaxiliya mooy dafa am yu lay jàppale di la dooleel yow comme li nga xamante ni jàkk ji pour mu taxaw faw mu am ay poto yoo xam ne ñoo koy dooleel mu taxaw yooyu itam objectif boobu nga am dafa bokk ci li nga xam ne daf lay dimbale di la dooleel di la puus pour nga jëm ci sa objectif boobu muy ay mbir yoo xam ne maanaam day nekk ci sa biir ay force ba si njëkk mooy ar raghba mooy faw nga xemmeem ko faw nga am bëgg-bëgg maanaam bu bu bu rëy rëy rëy ci li nga xam ne moom nga moom nga visé comme objectif waaye faw tam nga tarkiis maanaam tarkiis maanaam nga nga wu si faw nga concentré wu ci sa objectif boobu lii nga bëgg maanaam dara du la tax du la maanaam doo ko bàyyi mukk lu du danga ko am te dara du la yitteel wëlis ko moom dara du tax nga bàyyi ko dem ci leneen loo mën a def kay danga koy def boole ko ak moom waaye moom doo ko bàyyi di def leneen waaye aliltizaam mooy nga tënku maanaam programme bi nga tëral heure yi nga tëral yépp nga tënku ci respecté ko beneen ba mooy as sabr mooy nga muñ nag day métti surtout ci commencement bi day métti waaye nag su fekkee ne su méttee rek nga bàyyi doo ma doo ma sa dara waaye suy métti ngay continuer ni métti ngay foncer bu yàggee rek métti bi daal di dañ day dem ba nekk routine ci yow day dem ba nekk loo xam ne da koy miin automatiquement da nga koy def te doo ci yëg benn coono doo ci yëg benn jafe-jafe kon loolu mooy lu njëkk mooy faw nga am objectif bu leer alxutba al nga am planning bu leer planification bu leer ndax dañuy wax ne ki nga xam ne dafa am fu mu jëm mu tegal ko benn plan kooku dana am na trente pour cent pour réussir pour réussir ah dafa mel ni moom réaliser na trente pour cent mais soo soo soo amee xutba ba pare tam xutba boobu muy planning boobu nga bind ko ndax dañuy wax ne kii am benn planning te bind ko maanaam mel na ni moom téye na trente pour cent ci maanaam réussite am waaye ki nga xam ne daf koo bind moom yore ko fu mu toll di ko gis di ko nemmeeku di xam fu mu ci toll kooku dafa mel ni am maanaam téye na quatre-vingt-dix pour cent dafa mel ni jàkka jii rek ku xalaatoon jàkka ji tabax ko ak ni ñu koy tabaxee ak ni mu mel ak fu poto yi di nekk ak fu nangam xalaat ko rek bàyyi noonu woo maçon du tax nga tabax jàkka de. waaye faw nga bind ko yaxal ko ci kayit ingénieur bi bind ko defal ko fu nekk ñu xam fu poto nekk ña feeru lan moo fa war a dem lan moo fa war a dem lan moo fa war a dem su ko defee maçon bi loolu lay tiim di ci basé liggéey ferrailleur bi loolu lay tiim pour mën a xam fenn fu nekk yan feer la fay def kenn ku nekk ci loo maanaam xutta boobu ñu bind planning boobu ñu teg maanaam ci lay mën a basé pour def li nga xam moom la war a def kon faw nga am benn lan benn benn xutta waaye soo amee planification boobu ba pare tam faw tam nga fexe maanaam li ñu tuddee at tanfiis mooy nga exécuter ko nga def ko parce que bëri na koo xam ne mën naa am lu mu bëgg am objectif yu leer ci moom mën naa am planification boo xamante ni planification bu baax la waaye nag maanaam du am engagement wu maanaam pratiquer wala appliquer maanaam euh, planning boobu nga xam ne moom la moom la amoon ba nga xam ne à la fin maanaam li mu bëggoon du ko mën a lan du ko mën a réaliser kon faw nga jéem a réaliser maanaam xutta boobu nga xam ne moom nga tëral ba pare ba mujj mooy soo ko réaliser réalisation boobu il faut nga koy évaluer il faut nga koy xayma di xool maanaam dangaa waxoon bés bu set da ngay jàng euh, ñetti juzu masalan euh, léegi ci semaine bii am na am na am na bés boo xam ne heure bi nga xam ne moom nga waroon a jàng sa ñetti jus yooyu am na lu xew ba mënoo koo jàng loolu empêché nga daal di ko jël nga noté ko nga daal di ko jël nga lan nga noté ko beneen beneen semaine ba ci top am nga am nga am nga am nga temps bu libre am nga féexte wala dem nga foo xam ne danga faa toog da ngaa dem foo xam ne da toog di rang da ngaa dem mairie da dem. di fay ko da ngaa dem di fay ndox da ngaa dem feneen da ngay da ngay tukki am voyage bu sori boo xam yaa ngi ci oto defoo dara nga am occasion wu lan maanaam ñetti jus yooyu nga xam ne rate woon nga ko nga jàng ko tey kon loolu kii tax yi moo ko man maanaam kii évaluer est ce que li mu waroon a def def na ko wala defu ko lum ci def mu xam ko lum ci deful tam mu note ko pour bu ëllëgee mu def ko ko maanaam loola daf koy dimbale pour maanaam mu réaliser li nga xam ne moom la bëgg mu mel ni kon soo bëggee euh, maanaam euh, jàng Alquran euh, wala nga bëgg a maanaam nafar Alquran wala nga bëgg a dë maanaam dëgëral sa mokal dafa am lu ñu tuddee taatul xifz as-sab'a muy juróom ñe maanaam ñe juróom-ñaari taa yoo xam ne daf faw nga jëfandikoo ko pour nga lan pour nga mën a mokkal ak lu ñu tuddee taat al muraajaa al thalaatha ak soo demee ba mokal ba sa mokkal dëgër ba pare tam ñetti taa yooyu faw tam nga tënku si pour maanaam sag muraajaa mën a nekk loo xam ne lu luy wéy la ba ci njëkk mooy tahyi'a tahyi'a tahyi'a mooy lan mooy préparation maanaam am nga benn xutba am nga planning boo tëral am nga objectif bu leer léegi nag faw nga pare faw nga pare psychologiquement yow sa bopp nga pare sa bopp nga pare pour def li nga bëgg a def waaye tam faw itam nga pare ci euh, maanaam li nga xam ne moom la ñu tuddee taxdiid al wirdil yawmi bés bu set lan nga bëgg a def lan nga bëgg a jàng bés bu set loolu faw nga pare ci waaye tam faw nga pare ci wax ban heure ban waxtu nga koy def loolu ci préparation bi la bokk waaye tam faw nga pare tam ci ban place nga koy defee parce que du palaas bu nekk nga mën a toog jàng alquran mën a teewlu mën a mokkal du waxtu wu nekk itam nga mën a toog mën a jàng alquran mën a teewlu mën a mokkal yow sa bopp itam du jamono ju nekk nga mën a toog jàng am na jamono yoo xam ne dangay ngay am na jamono yoo xam ne da ngay am na jamono yoo xam ne da ngay nekk ci tiitaange am na jamono yoo xam ne da nekk ci stress am na jamono yoo xam ne da ngay mer am na jamono yoo xam ne nangam jamono yooyu boo soolee mënoo jàng alxuraan di ko mokkal kon yooyu yëpp foo nga lan faw nga préparé ko foo nga préparer sa bakkan mais foo nga préparer place bi ngay jàngee alquranul karim foo nga préparer tam waxtu wi ngay jàng alquran waaye tam ak saa mi heure bi ngay jàng alquran ay dinañ ci gën ñëw ci leeral euh, te loolu nag xëy na waxtu wa gën mooy waxtu lan waxtu fajar maanaam gannaaw bu ñu jullee fajar ba pare gannaaw bu ñu jullee fajar pare ci kaw maanaam nga nelaw nelaw yu day ci kaw nga nelaw nelaw yu doy boo nelawee nelaw yu day yeewu heure ba nga waree a yeew waaj ba julli fajar ba sëlmal foofu nga toog noonu foofu waxtu la woo xam ne dafa yomb lool nga mokkal fa alquran waaye tam waxtu waxtu saxar muy waxtu yi nga xam ne mooy sudusu laylil axiir nga xam ne borom bi subhanahu wa taala day wàcc ci asamaanu juróom-ñaareel bii di wax ndax am na kuy jéggalu ma jéggal ko ndax am na ku may laaj dara ma jox ko ko ndax am na kuy ñaan ma may ko waaye nag loole tam euh, dafa nekkul ne ma donte waxtu yooyu waxtu woowu lañ gën a tànn waaye nag mën naa wuute salon nit ki am na koo xam ne su julee timis la gën a mën a jàng am na koo xam ne guddi gi la gën a mën a jàng am na koo xam ne kenn ko nekk na xool heure bi nga xam ne gis na ne heure boobu moom munaasib na ci moom pour mu mën a jàng mën a mokkal mu tànn ko bu loolu amee ba pare mooy at tasxiix mooy ngay wéral li ngay jàng mooy li ngay jàng su fekkee ne ku toll ci jàng la faw mu dem ci ab sëriñ boo xam ne moo ko koy sax wala boog mu jàng ko ci kanam ab sëriñ mu wéralal ko ko waaw parce que su loolu amul day mokkalaale loo xam ne ah maanaam bu demee ba mokkal ko dind ko day jafe la oustaz Muxtaar Silla doon nettali nee na nee na góor gi day jàng alquran bu yegsi si imma yablughanna indaka alkibar <laughs> nee na xool ko xool ko ba mu yàgg ni baat bi ni ma ko yàggee yàq imma baylughanna <laughs> kon kooku dafa manque bu ko wéralal li ni jàng kon li muy jàng faw mu am ku ko lan ku ko wére lan xaw ma man ba mu ko yaax lan la doon wax <laughs> euh, euh, beneen ba mooy at tasxiin ci taay at tasxiin tasxiin mooy lan mooy su joueurs yi suñu football bu ñëwee ci terrain bi dañuy def échauffement noonu la noonu la ngeen koy waxee cëppi cëppi tàngal seen yaram def ay tour de terrain tuuti tuuti def ay mouvement pour lan seen yaram tàng seen cër yi bàyyi balaa ñoo dugg ci match bi sport yëpp yaakaar naa noonu la naka noonu tam même soo jugee pour jàng alquran léegi tasxiin boobu noo koy defee mooy li nga mokkaloon démb li nga mokkaloon démb nga jàngaat ko parce que da ngay préparer sa bopp psychologiquement parce que da war a jëm ci jàng loo xam ne lan da nga kaa war a mokkal lu bees. te jàng lu bees loo war a mokkal dafa xaw a nga jaar ci li nga xam ne jàngoon nga ko démb ba mu mokk loola day yomb su ko defee balaa ngaa pare ci loola da ngay sa xel day daal di sawar pour mën a jàng lu bees wala boog lu bees li nga war a jàng nga jàng ko bi nazar mooy nga xool ko nga jàng ko ci say bët nii rek xool ko jàng ko nii ba mu jeex te doo ah, ba pare nag nga door a commencé nag maanaam di ko jàng. beneen ba ci topp mooy at takraar mooy ngay répété gis nga mauritanien yi seen mokkal gi ñu leen di coowee dara mayul leen ko lu dul maanaam tak kasratu takraar dafa bëri rek lu ñu répété da ngay gis koo xam ne day yor àlluwaam rek toog ci àll ba tànn ci désert ba foo xam ne dara nekku fa dara lu koy déranger nekku fa teg fee as mbaraadaam rek ak as ngutus ndoxam din bu kéewam yàgg mu naan ndox bu yàggee mu naan ataaya maanaam di jàng yor kurusam di konte rek jàng ko téeméeri yoon ñaar téeméeri yoon ñetti téeméeri yoon te daal di su mokkee day daal sax ndax dañuy wax ne maa takarrara takarrar lépp lu lu répété rek day daal di lan day daal sax kon faw maanaam ñu bëri lu ñu lan takraar li nga xam ne moom la ñuy jàng mais faw tam ñuy bëri lu ñu takraar li nga xam ne moom lañ mokkal ba pare man maa ngi fàttaliku bu ñu nekk ci daara ja suñu daara dafa nekkoon daara ju neex yoo xam ne ñun ñoo fa nekkoon sax dañ daan wax ne daara ji moom kenn du fa mokkal alxuraan <laughs> waaye sëriñ bi ndax sëriñ bi pédagogie ak maanaam ak yombalam ci wàllu njàngale waaye yàlla defal ko taw tawfiix nag ñun ñi dañuy toog du ñu fàttaliku sax ban temps la amoon pour jàngal ñu ndax euh, maanaam occupation am ci jaamu yàlla su ma la nettali woon programme am diggante quatre heures de matin ba quatre heures de matin jotaat suñ la waxee kii ab sëriñ daar la buy toog ci xalqa da ngay wax déedéet maa ngi fàttaliku bu ñu ku tari nii ra sax mu yëg ne li nga tari xaw la mokk daf lay wax ne dama jàng ko fanweeri yoon ça dépend ci tari bi nu mel léeg-léeg man dama jàng ko ñaar fukki yoon léeg-léeg man dama jàng ko fukki yoon parce que xam na ne nombre boobu boo ko jàngee rek mu mu mokkal ñun demoon nañ sax ba léeg-léeg suñ bëggee teela wàcc dañ naan ko sëriñ ku jàng ñaata yoon wàcc <laughs> ku jàng ñaata yoon wàcc bu ko defee mën a mën a ñu jàng leen juróom fukki yoon ku jàng juróom fukki yoon wàcc ci kaw nag bu ko defee ñu jàng jàng jàng jàng ku am juróom fukki yoon sëriñ pare naa wàccal su subaa booy ñëw rek tari beneen ba mooy at taraabut mooy li nga li nga li nga li nga li nga mokkal ba mu wees ak li nga mokkalaat bees faw nga rabtu leen maanaam faw nga lënkale leen faw nga lënkale leen euh, par exemple su fekkoon ne danga doon mokkal bés bu set page soo mokkalee benn page démb tey nga war a mokkal benn page page boobu nga jàng démb da ngay jàngaale commencement wu page bi nga war a jàng tey maanaam commencement commencement wu page bi nga war a jàng tey danga koy mokkalaale ci page bi nga xam ne moom nga mokkal démb nga xam ne soo ñëwee doo am problème mu page bi bu jeexee beneen page bi fan lay fan lay commencé waaye soo jàngee benn page ba mokk nga ñëwaat jàngaat beneen dem jàngaat beneen. mën nga mokkal page yi mais dootoo xam page yi nan la ñu lan toppalantoo kon da ngay di mokkalaale commencement ñaareelu page bi ci démb wala boog première page bi nga am loo ca bàyyi loo xam ne danga koy mokkalaale ak deuxième page su nekkoon par ay aaya ngay mokkal ay saar ngay mokkal par ay xisbu par loo mën a mokkal maanaam li nga mokkal ba mu wees danga koy rabt ak li nga xam ne mooy mooy la ci topp beneen ba ci topp mooy at tasmii mooy nga koy tari mooy nga koy tari mooy nga koy tari la ci gën nag mooy nga tari ko cib sëriñ nga tari ko cib sëriñ nga xam ne da lay déglu wala ci sa morom moo xam ne xam nga ne maanaam am na tolluwaay yoo xam ne war na laa mën a déglu te war laa mën a defaral ay yàq war na laa mën a jubbantil yi ngay juum yooyu yëpp waaw wala su fekkee loolu amul wala mu nekk koo xam ne sax xëy na toll na foo xam ne soxlawul loolu ah waaye su boobaa maanaam day déglu boppam day déglu boppam kenn ci suñu mag réew mi daana def su maanaam li mu waqf li muy jàng ci bëccëg bi bu guddee moom lay tari lu mu xat xat xat xat bu xatee am ay ganaki ay yitte ba ba ba ba jotam permettre ko sax mu def ko ci biir kër gi day woo chauffeur bi na ko taalal oto bi mu taal oto bi ñuy wër dëkk bi muy tari ba mu jeex moom moomu bi muy génn àdduna te génnee àdduna ci Londres sëtam bi nga xam ne euh, fekkee woon na ko nee na bi mu nekkee fi nga xam ne mooy euh, kii euh, urgence nga xam ne maanaam fa mu toll na foo xam ne sax maanaam ci nelaw la la nekkoon heure ba mu doon jàng waqafam dafa jot rek mu mel ni automatiquement rek ñu dégg ko muy jàng alquran ba ba tubaab yi naan saal bi daa am benn benn woykat bi fi nekk day waye rek day waye rek <laughs> day waye rek ndeysaan ba ci mujj mooy ab tafsir mooy li ngay jàng nga jéem a xam lan lay tekk rawatina nag ki nga xam ne mag la rawatina ki nga xam ne mag la mu mokkal alquran di ko dëgëral wala mu mokkal alquran dëgëral ko ba pare di ko muraaja ndaxte maanaam xam li ngay wax da dimbale maanaam ci dëgëral mokkal gi daf lay dimbale tam ci saxal ko rawatina su dee mag la ndax soo demee ba weesu ay quarante cinquante ans jëm cinquante ans yooyu rek sag mokkal day gën a lan day gën a xat waaye sa compréhension sa dégg day gën a lan day gën a day gën a yaatu kon loolu mooy ak euh, atu sabaa yi nga xam ne mooy pour ku bëgg a mokkal wala pour ku bëgg maanaam dëgëral ak mokkal am na lu ñu tuddee taatul murajaa asalaasa muy ñetti taa yi ngir ki nga xam ne dafa bëgg nafar mokkal na dëgëral na mokkal gi ba mu dëgër waaye nag day nafar kooku faw muy def lu ñu tuddee at tasbiit mooy dëgëral mokkal ga xam nga defoon na ko waaye du foo muy def at tasbiit muy di dëgëral mokkal bi dëgëral mokkal googu mooy moom itam foo mu am xuppa par exemple mu ne surtout su fekkee dafa nekk koo xam dafa mokk fàtte woon luy mel noonu wala mu dem ba wala wala wala mokkal na waaye mokkal dafa bëgg mu gën a dëgër wala dëgër na ak lu mu ci mante gi demee rek am na ay xutat am na ay méthodes yu bari par exemple bokk na ci mooy mu jël ñetti juzu par exemple ñetti juzu mooy juróom-benn xisib mooy juróom-benn xisib fukki fan yoo xam ne bés bu set juróom-benn xisib yooyu kese lay jàng. di ko tasbiit mooy di ko dëgëral di ko dëgëral ba maanaam juróom ba ba fukki fan yooyu jeex léegi su ko defee juróom benn xisib yooyu day daal di day daal di toxalu jugee ko ci tasbiit dem ci muraaja daf koy boole ci li muy muraaja li muy nafar da koy nafar parce que dëgër na ba pare léegi su yeneen fukki fan mu jëlaat yeneen juróom benn xisib yeneen fukki fan mu jalaat juróom benn xisib ci weer wi mi ñaat xisib six fois trois ah dix huit waaw su ko defee kon maanaam weer wi am na si dix huit xisib léegi loolu mu mu taxoo ko ba mokk ba maanaam ba xatmu ci salaasina xatma maanaam fanweeru xatma wala mu def ñetti juz yi par exemple ci ñaar fukki fan ci ñaar fukki fan ba xat mu ko lu toll ñaar fukki yoon maanaam ñaar fukki fan yu nekk mu jëlaat yeneen ñetti juzu wala mu def ñetti juzu yi ci fukki fan ak juróom ci fukki fan ak juróom fukki fan ak juróom yu nekk mu jëlaat ñett ba xat mu ko lu toll fukki fan ak ba xat mu ko fukk ak juróom ñetti étape la bu njëkk bi ci fukki fan la koy def ba xat mu ci fanweeri yoon bu ñaareel bi ci ñaar fukki fan la koy def ba xat mu ci ñaar fukki yoon bu ñetteel bi ci fukki fan ak juróom la koy def ba xat mu ci fukki yoon ak juróom kooku yaakaar naa ak mokkalam kenn dootu ko laam laame su xasee ba def loolu nag su boobaa nag léegi day def day jël kaamil bi mu séddale ko ci semaine bi nga xam ne semaine bu nekk dana xat mu benn yoon loolu danañ ci ñëw kon loolu mooy marxala bu njëkk mooy at tasbit moo ki ki ki nafar foofu muy def tasbit moo nag mokkalam nag mën naa toll foo xam ne day boole tasbit ak muraajaa mën naa toll foo xam ne day tasbit kese ba pare doora muraajaa sans dépend rek su paree ci loolu foofu muy def at taraakum mooy almurajaa at taraakumiya mooy juróom benn yu yooyu mu am da koy nafar jagleel ko bés bu mu koy nafar yeneen juróom benn yi ci topp daf koy jagleel bés bu daf koy jagleel bërëb bu bés bu mu koy nafar loolu mooy almurajaa at taraakumiya su demee ba pare ci loolu yëpp nag la ci des mooy lan taahud moom la yonent bi sallallahu alayhi wax ne taahadu alqur'ana taahud nag ki koy def mooy ki nga xam ne moom fa mu jëm ab tool la boo xam ne miin na ko lool xam na ko lool mokkal na ko lool day dem di ko nemmee ko rek nga xam ne xam na fu pakk ya nekk xam na fu nàngam ya nekk ak lu nekk rek xam na fu mu nekk kon loolu mooy at taatu salaasa lil muraaja mooy at tasbit ak at taraakum ak at taahud léegi nag mu des at turuqul amaliya li tasbiti al xifzi wal muraajaa maanaam méthodologie yi nga xam ne nit ki moom lay jëfandikoo pour lan dëgëral ak mokkalam wala lan wala muraajaa kon kum ci manti doon ci ñii nañu bàyyi xel yii bi njëkk mooy faw ngay naan ndox mu doy ne ni may wax nii rek sama put gàngoo kom <laughs> <laughs> faw ngay naan ndox mu lan ndox mu doy mais foofu tam ngay am alimentation bu baax muy dund bu lan dund bu baax kon yàlla yàlla yàlla def sëriñ daara si ay milliardaire waaye <laughs> faw nga am dund bu baax waaw ndox moomu nag boo bu fekkee du la wàññi dara boo ci mënee def limon sax def ko ci baa nga def ci jinjeer baa nga def ci naana kii laay wax xoromp wala laay wax baa nga def ci naana wala ngun-ngun yu mel noonu waaw foofu ngay naan ndox mu doy di naan ñaari litre ñetti litre ñetti litre ak genn wàll par jour waaye foofu tam bul bul bul mokkal wala ngay muraaja ci waxtu woo xam ne dangaa lekk ba regg wala waxtu woo xam ne dangaa lan danga lan dangaa xiif waxtu yooyu doo nekk koo xam ne dangaa nekk motadi doo am équilibre maanaam da ngay jàng ci jamono ji nga xam ne danga am cawarte pour lan pour jàng waaye tam faw nga bàyyi itam lépp lu la yitteel ba man laa yàqal li ngay def portable yeeg maanaam di jàng jël sa portable teg sa wet léeg mu ne ku ndung ndung ndung nga daal di xool message bi léeg-léeg nga yëkkati léeg leen nga bëgg mbaa léeg-léeg nga wax du sot am na ñu ne sax am am na am na ñu ne sax boo boo yoree kaamil di jàng sax boo mënee def nii kaamil bi nii sax moo gën ndax loolu am na ay avantage avantage yi mooy doo sonn ci sëgg ba sa loos di lan bi metti waaye ñaareel bitam tam loola dana tax ba mboolem yi nga xam ne moo nekk sa kanam war la attirer maanaam doo ko gis yow da ngay concentré wu ci li nga xam ne moom ngay moom ngay jàng beneen bi mooy booy jàng na nga commencé ci euh, maanaam at taxqiq maanaam li ngay jàng nga jàng ko bi taxqiq yaakaar naa loolu jël ngeen ko ak masaayix yi ci dawraat yi ngeen def su ko defee nga Euh, dem ba jàng ko bi tadwir nga dem ba jàng ko bil xadr nga xam ne nag xadr boobu nag moom ngay mujjee nag di ko lan di ko nafaree gannaaw boo xam ne njàng mi wér na njàng mi leer na njàng mi mokk na waaye faw tam maanaam nga jéem a fexe ngir maanaam rafetal sa taa sa baat faw nga jéem a fexe tam am nafas xëy na loolu temps bi du ko maye faw nga jéem a fexe am nafas maanaam am fond am na ay exercice yoo xam ne nit ki mën na koo def pour am lan fond xëy na lool xëy na comme temps bi dix minutes moo ci des duñ ko du du ci xaj waaye loolu foofu nga bàyyi ko xel foofu itam nga jéem a respecté li nga xam ne mooy ahkaamu tajwiid yi sooy jàng ak martaba boo mën a lan boo mën a jàngee waaye itam foofu nga bàyyi xel li nga xam ne moom mooy euh, di déglu Alquran. waaye di jàng itam bi sawtin masmoo maanaam yow li ngay jàng te li ngay jàng nga koy dégg loola da lay dimbale lan nga mokkal ndax li nga xam ne danga koy dégg su boobaa loola day sax ci sa lan sa xel mi te noo ko gën di takraare maanaam muy bàyyeekoo ci fi nga xam ne moom la ñuy wax azakira al qaribatul mada dem ci fi nga xam ne moom la wax azakira al baidatul mada nit dafa awoon ñenn ñi di wax al aql al batini ak al aql al awwali comme al zahiri maanaam dafa am xel moo xam ne dafay jàpp waaye bu jàppee du yàgg dafay jàpp waaye bu jàppee du yàgg loolu da ngeen ko neex neex expliquer soo demee ci xalqa yi da ngay gis xale boo xam ne day ñëw ne la mokkal naa nga ne ko tari mu tari la léegi tari mu sedd weec du yàq du gàkk du jaawale du am dara boo toogaatoon tuuti wala ñu génn ba ci kanam nga woowaat ko naka tariwaat ko wala sax buy ñëw di tari saar bu taree saar bi ba pare bi egsee si bind bi bind bi du mokk du mokk te yaa ko déglu léegi dafa nekk ci azakira alqaribatul mada mooy li ñu tuddee takk xel moom day takk rek waaye nag takraar mooy tax bu yàggee mu toxoo ko foofu dem ci azakira al baidatul mada nga xam ne même lu mu yàgg-yàgg foofu doo ko fàttee léeg-léeg sax nga dem ba euh, euh, euh, jàppoon ne li fàttee nga ko am lu xew ci sa kanam rek nga daal di fàttaliku loolu xam naa ñoom ustaas yi xam nañ li may wax léeg ñu jàng lu yàgg jàng dara lu yàgg ba jàpp na loolu sax jàppatuñ ko wala xamatuñ ko wala fàttee nañ ko nit laaj leen ko rek wala ñu gis dara rek lu leen fàttali loolu mu mel ni loola tey lañ ko jàngoon nga dégg ñu naan la ba mu ko jàngee léegi mat na ñeent fukki at ci téere sàngam laa ko jàngee woon parce que loolu dafa nekk ci azakira albaidatul madad beneen ba mooy na ngay déglu alquran te nga tànn jàngkat benn jàngkat boo xam ne soo sooy déglu moom ngay moom ngay taqlid su fekkee da ngaa bëgg a taqlid bu yàggee nga dem ba am sa njànginu bopp te soo koy roy itam na nga jël benn maqta kese nga ko si bu yàggee nga jalaan beneen maxta waaye nga fexe tam bay participer ci yoo xam ne day tax maanaam sag mokkal sax waaye daf lay boole ak ñi nga xam nitu alxuraan dañ la mën a jàppale la mujj mooy pour ñu tënk comme temps bi jeex na mooy faw nga xam euh, li nga xam ne mooy mutashaabihaat maanaam baat yi nekk ci alxuraan te niroo faw nga jéem koo ràññee loolu nag la la dimbale pour nga jëm koo ràññee yii la ñett yii moo lay dimbale pour nga mën a peeg mutashaabihaat yi man koo ràññee loolu la ñu mujjee ba si njëkk mooy tasbiitul mahfuuz mooy li nga mokkal nga koy dëgëral saa su nekk nga koy dëgëral saa su nekk di jàng saa su nekk di muraaja saa su nekk su yàggee danga dem ba nga xam ne maanaam mutashaabihaat yooyu danga koy mokkal automatiquement soo jàng foo si yëg si rek doo doo sax xalaat ñaareel ba mooy maarifatu mawdii attashaabuh mooy ngay jéem a yitte woo di xam yi niroo benn bu nekk ban bërëb la nekk ak lan mooy leen wuutale ñeenteel ba mooy tashbihul mutashaabihi euh, tasjilul mutashaabihi fi daftar mooy soo toogee di jàng nga yor ab kaya boo xam ne mutashaabihaat yi ci nekk yi nga xam ne lënt na ci yow nga ko ciy def parce nag du darura Euh, lu lu lënt ci man lënt ci oustaz maanaam mën naa am lu jafe ci man ba pare fekk yomb na loolu ci oustaz Touré pour moom loolu problème du jafe-jafe kon man su ma toogee di jàng mu de saabaat yi nga xam ne gis naa ne am naa ci jafe-jafe damay jël ab kay di ko ci tënk di ko ci bind waaye su ma ko ci bind itam foo ma am méthode méthode yooyu bokk na ci euh, lu ñu tuddee maanaam euh, ar rabt bil xarakaat maanaam léeg-léeg nga jéem a xool gis naa Cheikh Abou Taha macha allah am na ci silsila bu ama am solo boo xam ne jamono yële ci gannaaw doon na ko jàllale du ñàkk ku ko yittewoo tam jàpp naa ne du ñàkk vidéo yi mi ngi ci moom ba léegi incha allah par exemple sooy xool euh, baatu yunzafuun soo xoolee ñëw na ci suratul safaat waaye ñëw na ci sooratul waaqia waaye ci ci saafaat yunzafuun moo fa nekk ci waaqia yunzifuun moo fa nekk fii dañ koo fatxa fii ñu kasra ko su boobaa da nga naan assaafaat saat bi dañ ko maas lan fatxa kon nga xam ne assaafaat lan moo fa nekk ah yunzafuun moo fa nekk waaqia xaaf bi dañ koo lan kasra kon waaqia lan moo fa nekk yunzifun kon maanaam loolu lañ tuddee arabt bil xarakaat léeg-léeg maanaam maas yi moo la ma wutale soo xoolee ci maanaam euh, turu saar wi par exemple léeg-léeg tam nga jëfandikoo al jumalul inshaiya maanaam ci balaaxa dafa am lu ñu tuddee al jumal al xabariya jumalul euh, juma euh, al xabar mooy loo xam ne maa yumkinu tasdiquhu aw takdibuhu ngeen baal ma ci saraay parce que xëy na musawayaat lay sóoraale xabar mooy loo xam ne lu wolof di wax xibaar jaa Muhammad Muhammad ñëw na man ngaa wax dëgg la ñëw na wala man ngaa wax du dëgg ñëwul loolu mooy xabar waaye may ma nàngam loolu ñaan la ak a neexoon ma am nàngam loolu tara jii la kenn mënul wax dëgg la wala du dëgg kon yu mel noonu moom mooy lan wala wala defal nàngam loolu incha kenn mënul wax dëgg la wala dëgg maanaam yu mel noonu dañ koy ci tënkee comme lu mel ni gafara allahu lil xaaji Muhammad Yuusuf xafara allahu lil xaaji muhammad yusuf yàlla na yàlla jéggal alxaaji muhammad yusuf xam nga wax ji loolu la ñaan la mooy xaba incha allah loolu li muy tekk mooy afalam yasiru yi ñëw ci alquran xam nga alquran am na afalam yasiru am na awalam yasiru léegi afalam yasiru yi moo ngi ñëw ci suratu Ghafir ak suratu Hajj ak suratu Muhammad ak suratu Yusuf loolu lañ tënk foofu ne ghafara allahu lil xaaji Muhammad Yusuf wala gaafir loolu mooy awalam awalam yasiru ci ci la nekk ak ruum ak gaafir kon loolu benn la ci ci ci ci dabt mooy aljumalul inshaiya beneen bi mooy addaabitu bi sheer léeg-léeg ci way comme lu mel ni lu muy wax ne wa qaddimi lahwa yaa man fi surati al araafi wal ankabuuti wa qaddimi llahwa yaa man tamuutu fi surati al aaraafi wal ankabuuti am nga ci alquran am na lahwun wa laib am na laibun wa lahwun am na lahwan wa laiban laiban wa lahwan maanaam fan la lahwu baatu lahwu moo xam lahwan la wala lahwun la fan la jiitoo baatu laib moom la lay wax mu ne la wa qaddimi llahwa yaa man tamuutu fi surati al aaraafi wal ankabuuti kon ci sooratul Araaf rek ak si sooratul Ankabut kese ngay fekk baatu lahu jiitu baatu lan laib fudul foofu soo demee baatu laib mooy jiitu baatu lan baatu baatu lahu kon mu mel ni kii eh, am na lu des si waxtaani lu xaw a kii waaye loolu mooy eh, li nga xam ne maanaam waxtu yu may nañu ko gannaaw boo xam ne sax mbokk mi xam naa ne njàmbaas na ci ay minute kon ñu ngi eh, yamale foofu sunu kàddu di jéggalu borom subhanahu wa taala di leen jéggalu lépp loo xam ne am na ci waxtaan wi ci ay matari ak rëcci-rëcci ak ñàkk a toftaloog ñàkk a nosewu loolu comme ni ma leen ko waxee woon rek ngant yi ma gaaraloon ci commencement bi moo ko waral waaye amoon nañu yéene bu ñu fay indi tam ñu indi fi lu nosewu lu leer loo xam ne dana nekk njariñ pour ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum yàlla yéen allahuma la abur kon mbokk yi mu mel ni ñoo bokk déggandoo li nga xam ne moom la ñu oustaz andil ci thème boobu nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi ko doon xaar muy maharatul muraajaati wa tathbit al mu nekk thème boo xamee ni soxlaal nañu ñun ñëpp ndax al alquran comme ni mu ko waxee rek ni ko yonent bi waxee taahadu bil quran ndaxte dafa gaaw a rëcc comme damaa jëlale dong daara bi waaye ba ci sëriñu daara bi sax war na garder alquran bi nga xam ne daf ko mokkal balaa moo rëcci balaa moo rëcci li mu fi wax macha allah ñu ngi doon jéem a tënk waaye lépp mënuñu ko tënk waaye li ci ëpp solo rek mooy li mu wax ni nit ku nekk dafa am qudra aqliya capacité boo xamee ni sa xel foofu la toll bala ngaa mën a xam sa capacité xel fam la toll nag faaw nga natt ko ba pare bul tëb tëb ni man mënumaa mokkal wala mënumaa def nangam isin nga jéem ba pare te mooy nga istixlaal sa qudra aqliya ba xam fan la toll loolu tamit ñu bari ci sëriñ daara yi dañ cee war a bàyyi xel macha allah ba tey wax nañu ci al alaqa al yawmiya bil quran al ak ñun mooy alaqa bi nga xam ne moom la ñu ci bis bokk na lim ci wax lu am solo mooy bëgg mooy bëgg bu ñu bëggee dañuy gën a mën a am courage ci topp li ñu bëgg ndax dañ ni man ahabba ataa mbir moom boo ko bëggee bëgg ko coono bu mu laaj pour am ko di nga ko ci def waxaat ba tey ci alaqatuna bi quran mu nekk ay mbir yoo xam ne tudd na ko yaakaar naa nota ngeen ko bind ngeen ko wax ba tey ci almabadi ar raisiya li xifdul quran ixlaas tawba istigfaar ak yem ci tudd wax ba tey ci al ajhida al thalatha te mooy appareil yi nga xam ne moo ñuy dimbali ñi mën a jàng bay mokkal lu mel ni bët lu mel ni nopp lu mel ni làmmiñ foofu damay wax rek ñaari at ñaari bayt yoo xamee ni imam Shafii wala imam Wakia am na ko wax ci ñoom ñaar imam Shafii dafa demoon ci borom xam bu ñu wax imam Wakia ko tawat ak mokkalam mu ni shakawtu ila wakiin suwa xifdi fa arshadani ila tarki almaasi wa alamani bi anna al ilma nuurun wa nuurullahi laa yu laa yuxtaa wala laa yuhdaa li aasi mu ne damaa dem ci moom di tawat sama mokkal gu xaw a tagga témbe mokkal goo xam ne xay na nam daan demee demeetul noonu mu ne ma li ma lay njëkk mooy nga maytu mooy yàlla te bët bii dafa gaaw torop ci mooy yàlla xool lu warul xool nopp bii di dégg lu mu warul dégg di tudd lu mu warul tudd te comme que xam-xam leer la leer ak lëndëm mënuñoo ànd kon aji hisa yooyu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax wattu leen daal dina mën a garder ndax ñu man ñoo dimbali ba liñ bëgg a xam ñi xam ko loolu li ma fi tënk lépp xëy na ba ma ko bëggee wax day gudd yaakaar naa ni yéen tënk ngeen ko seen ay kaye incha allahu taala comme niñ ko xamee bu ñu demee ci musa euh, musaabaqa saqafiya bi dina gën a kii incha allahu taala bu fekkee ni tënk ngeen ko kon daal ñi ngi sant oustaz bu baax a baax ko ñaanal di ko wax jazakallahu xayran yal na yàlla fayal ñu la yiwu baree baree bari yal na yàlla yokk xam-xam bi kontaan nañ trop jërëjëf macha allah kon ñu jox Cheikhna bu fekkee am na lu mu ciy taaliq rek mu taaliq ko ci asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ma bikum min ni'matin fa min allah eh, awalan ginnaaw sant yàlla gi ci liggéey biñ dooroon aljuma ba léegi borom bi di ñu tawfiqal nañ ko programme woon ba léegi mi ngi doxee noonu nanga ko ci sant tey ñaan la ci des lépp mu defal nu ko lu kawe sunu njort te nangul nu euh, thaniyan noo ngi sant al ustaaz Mouhamadul Amin caam ci ard bu am solo bim ñu defal gaaral suñu toom bi gaarlin woo xam ni wu xóot la te teref ni ko sama baay daan waxee maanaam tënk na lu tuuti waaye mu ëmb njëriñ lu bari loo xam ne kenn ku nekk ci ñun boo toogoon di déglu rek te noté woo sax jariñu nga ci jariñu goo xamante ni boo jugee ba duggaat ci sa ruq pour continuer sam njàng muy mokk wala ngay nafar pour dëgëral dina la jariñ bu baax a baax même boo jàppee rek ni ku bëgg di mokkal day naan ndox mu bari loolu rek boo ko jàppee tey naan ndox mu bari jariñu nga ci <laughs> waxuma laa nag yeneen yim junj eh, saaniyeen bala maa sori noo ngi dalal sunu kilifa sunu sëriñ sëriñ Alxaaji Malick Touré di waajur ci Oustaz Mouhamed mi doon na eh, jiite jotaay bi waaye di sunu sëriñ ndax noonu bi ñu mokkale alquran ca daara ja wàllu xam-xam gi ci daara ja jamono jooju moom mi la ko sëñ bi dénkoon lañ fa jote jàng ci xam-xam ci xismu taalim yëpp ci kilifteefam la jamono ji nag mi ngi fii ndakaaru yaakaar naa sa dëkkandoo la sorewu leen ci côté Almadida fa la yor daara di jàngale foofu ak a yar noo koy dalal ci jotaay bi Cheikh Maodo daanaka liggéey bi seenub liggéey la dañuy jëm a ñett ñetti rek alhamdulilah daje na fi lu tolloog juróom lu topp juróom-ñett fukk yëpp mokkal nañu alquranul karim eh, ñu di fi daje at bu nekk di jàng lenn ci ay bunti tajwid ngir wëral njàng mi waaye di amal ay jotaay yoo xam ne dañ leen gën a wan wu yoon wan leen wu yoon ci ñu téye seen alquranul karim waaye wan leen wu yoon ci yaatal ca ci wàllu xam-xam ya amoon nañ fi jotaay yub kayfa akunu min ahlil quran ustaz Hamza Gaye ko def si woon démb Cheikh Babacar Ngom moo indi woon kunu rabbaniyin jël ay amthila ci ar rabbaniya fi xayaatul qura jotaay bu ñetteel bi moo nekk nii Cheikh Hamza Cheikh Khadim Dia Rachid allah dina fi ñëw ginnaaw suba pour war a waxtaane indi ay tawjihaat amma li xufaadil quran aljuma ma war a ñëw ak ñoom ci atharu xirrijil maahidil fi l mujtama sénégal yi loolu buñ ko booleeg bindi tajwid yi ñu jot a jàng suba gu nekk ak euh, taawit gi ñuy taawit sunu bopp ci al ada ak xosar yi ci ginnaaw njël gi ak musaabaqatu tasxiixi tilaawa gi ñu fi amee musaabaxat musaabaxat thaqaafiya xawla al quran mooy li nga xam ne moo ëmb dawra bi ci diiru fukki fan yiñ fiy def euh, noo ngi leen koy gaarale noonu euh, di sàkku lépp luñ ci loolu ci ay xalaat ak ay tawjihaat ak i jubbanti tamit boo leen ko junjee rek incha allahu ñu dox ci noonu barakallahu fikum loolu moo nekkoon euh, daanaka li may dolli xanaa junju rek euh, tomb bu am solo bu Cheikh Mouhamed junju te Serigne Mouhamed Touré bàyyi waloo waat ci xel mooy jumtukaay yi ñu yàlla jox mooy li ñu jox pour ñu ci jàng di ci mokkal Cheikh Mouhamed junj ne nañ ko sàmm ci mooy Serigne Mouhamed Touré waxaat na ko am na ñoo xam ni ci nit ñi borom bi subhanahu wa taala joxandoo na leen ñetti jumtukaay yépp buñ mokkalee alquran wala buñ koy jàng ci lañ koy jàngi jàpp naa ne ñun ñëpp ci lañ bokk ñun ñëpp dañoo jëfandikoo sunu bët ak sunu làmmeñ ak sunu nopp ngir jàng alquran karim muy dem ci xel ma ñoote ne ñi nga xam ni borom bi daa muur seeni bët am na koo xam ni ci jaam yàlla yi mokkal na alquran waaye masque ak fatxa boo ko laajoon nu muy mel xamu ko masque ak damma boo ko laajoon nu muy mel xamu ko parce que mosu koo gis fan yii passé maa ngi yaatal benn vidéo bu ma fara ci internet bi xale su ndaw soo xam ne mokkal na alquran karim ñu laaj ko ni ko buñ la ni woon bu la yàlla ni woon dañ la may fursab nga gis benn yoon te lenn kese ngay xool ñu fayaat say bët boobaa lan nga bëgg a xool mu ni xanaa nan lañ bind alquran ci kaamil ñun ñu am ay bët mën a toog semaine duñ tiim ci kaamil am na koo xam ni borom bi daa tëj ay noppam tëj aw làmmeñam bëtam kese la jëfandikoo boole kookum xelam mokkal alquran gisu leen ko fi tuubaa gi am na daara muuma daara joo xam ni ka yor ba ab muuma la ñay jàng ca biir xalqa ba ay muuma lañ te kay jàngale mokkal na alquran ñay jàng ñu ngi mokkal alquran dañ leen koy bindal rek ñuy xool bu tari jotee dañ leen di jox bi ñu ñëw bind lañ leen bindaloon di ko bind te duñ ko xool muy firndeel ni mu ngi ci seenum xel mokkal nañ ko yow yàlla joxaloo na ñett yëpp <laughs> nga ne ko ñeneen muy ndab li nga xam ne wala yoon yi nga xam ni danga cee war a jaarale alquran ji pour mu dem ci sam xel ak say bët ak ak sab xol yàlla xam na ni bu ma génnoon dem ci usine bi ngeen baal ma ci misaal mi rawatina ci barab bi ma koy misaale jënd fa pot yu ndaw yooyu gone yi di toog di faj aajo bu bees tàq ngeen xam gis ni maa ko daj ma def ci cereeg soow ku ma ko jox doo ko lekk ba moytu loo tax waaw lu tax nga am fulla yi pot bi sax dafa dara waaye comme que ay mbokkam la muy def lekkuwul kon naa ko boole ki mbokkam yow ndab yi la yàlla jox pour nga jaarale ci alquran bi nga ciy rax la ne loolu xellun lu ma ta bàyyi xel inna alsamaa walbasara walfuaada kullu ulaika kaana anhu masulan assalaamu aleykum mayel fursa fukki minute ku am lu muy laaj nga noté ko joxandoo ko cheikh bi mu tontu ci incha allah noté nañ ci juróom-benn mooy at taqsim ak at takraar ak euh, at tasxiix ak at taraabut juróom-benn lañ ci jot a noté mooy ak at tasxiix at taqsim ah at tahayu naam at taqsim at takraar at taraabut at tasmiya ak at tafsir tasqin tasqin la at tasqin tasqin naam incha allah jazakallah xayr salaamaaleykum wa rahmatullah day indee njëriñ macha allah ñoom dara am solo bi njëriñ bu bëri macha allah laaj bi moom benn la mooy maa bëggoon nga def orientation ci kii bu góor yi nga xamante ne dafa bëgg a faj an nafasu xasir ci jamono bi yooyu jàng lu bëgg a am itaala bu nafas ci jamono bi yooyu jàng alquran itaala bu nafas yi jamono bi yooyu jàng alquran orientation la kii def. salaamaaleykum.

moo tax nga gis musaabaqaat aalamiya yi ñi nga xam ne lañu soxla mooy seen neexaayu baat ak nagamaat as sawtiya yi ak maqaamaat yeeg tabaqaat yeeg yu mel noonu nga xam ne loolu lañ soxla seen jàng ak ahkaamu tajwid yi suñuy jàng dañ leen di jox kaamil ñu xool même su fekkee mokk la ñu sax kon loola la ñuy def at tilaawa la tudd lenn keneen ki day laaj mu ne maanaam ki muraajaa ndax buy muraajaa daf ko war a mën na koo jàng mu yéex wala mën na koo jàng mu gaaw euh, su ngeen seetloo ci biir waxtaane dama wax ne sooy tàmbali da ngay tàmbalee at taxqiq mi njàng mu yéex mu leer comme kuy jàngale wala kuy jàng mooy njàng mi jëfa jëfandikoo suñuy jàngale nga xam ne baat yi day mel da nga koy xaw a ijj da ngay mel ku koy ijj day leer nañ parce que foofu danga soxla ci talkiin wala talaqi talqiin su ma ko waxee mooy sëriñ bi jàngal ki muy jàngal talaqi su ma ko waxee mooy ki nga xam ne moom mooy jëlee ci sëriñ bi ñaar yooyu bu mu ci manti ki doon taxqiq moo fa gën ndax mooy tax njàng mi set wér leer soo ko jàngee noonu tam ba ba mokkalee ko noonu tam njàng ma day wér te mokkal ga day dëgër dangay gis xale boo xam ne day jàng di tari tari mi gaa lool mën na laa tari baqara banaas mais soo ko cuqoon mu war koo njàng njàng mu yéex du la jàngal ñetti yu tegaloo te taxawul léeg-léeg mu jàngam yàgg sax nga gis ci concours mu saabaxaat yi xale boo xam ne tàmmul njàngum tajwid mu jàng yàgg nga gis mu ne tekk daal di répété ci suuf tariwaat ci suuf doo mën a continuer <laughs> kon loolu la koy waral mooy daf koo mokkal mokkal mu gaaw kon su fekkee da ngaa toll ci état bu mokkal nga mokkal bi taxqiq moo gën soo tollee ci tathbit nga jëfandikoo a tadwir soo tollee ci muraajaa nag nga jëfandikoo lan alxadr nga jëfandikoo alxadr parce que foofu li ngay muraajaa li ngay jàng dafay bari li ngay jàng dafay bari su boobaa li gën mooy nga jàng ko bil xadr maanaam mu bañ a yéex lool ah bañ a gaaw baña a gaaw lool hmm. waaw kii dafay laaj yan conseil lañu koy jox ci ki nga xam ne maanaam amul fond bi jàng day gaaw a sonn wala du mën a jàng lu bari xam naa la njëkk mooy am na at tamarin yu mu war a def pour mën a lan renforcer mën a yokk euh, maanaam fondam ba ci njëkk mooy nay def sport boo xam ne dana dëppoo ak kàttanam ak man-manam ndax ay pomoom mën a lan mën a tijjee ko benn parce que xam nga ne nit suy daw so par exemple soo gisee nit ku daw ba sonn nit ku daw ba sonn ba yëg nan lay def bi ngay gis day nooy lu bari parce que dafa dafa dafa dégager énergie bu bari te énergie boobu mu doon dégager yépp léegi li nga xam ne moo koy remplir aat pour mu nekkaat ala wadu raaxa mooy mu maa mu am oxygène bu bari parce que dafa manque oxygène foo mu jël oxygène kon ki nga xam ne mi ngi sport kooke maanaam day bëri lu muy maanaam jëfandikoo ci oxygène bi ci ngelaw li loolu benn la ñaareel ba mooy nay tëdd des fois bu tëddee tàlli ñareet jaaxaan tàllal ay loxoom yi ci bakkanam nooyi nooyi bu baax attirer air ba mu dugg comme ba ba yëg na ay poumon fees na dell ah mu téye air bi di ko génnee ndànk ci gémminam leer na maanaam mu nooy ngelaw bu baax ba ay poumon fees mu téye ko nag du ko génnee ci bakkanam waaye mu koy génnee ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ci gémminam ba mu jeex loolu su su ma nee xëy daf ko ñetti yoon ngoor mu def ko ñetti yoon loolu baax na su fekkee ne daa am ay tension yooyu bu ko defee mën naa yëg ne day miir waaye su boobaa mu toog tuuti door beneen ba ci topp mooy euh, ñu xam ne kiy jàng ngelaw lay jànge su ko defee loola day laaj muy nooyi nooyin wu normal am na koo xam ne ñu lay nooyee nooyin woo baaxul parce que li muy jël ci ngelaw du ko doy su ko defee kooku su bëggoon jàng du am air bu muy jàngee parce que sooy jàngee da ngay nooyi lan ngelaw ba ngelaw ba sa poumon fees après ngelaw looyu moom ngay génnee ndànk-ndànk di génnee ndànk ngelaw loolu moom ngay jàngee saa soo demee ba nga xam ne ngelaw loolu jeex na rek da ngay daal di lan da daal di lan taxaw suñu bëggoon def tajriba bi par exemple wa anna léegi ngelaw jeex na bu jeexee rek mënatoo dem kon yow mi jàng itam soo gisee jàngkat mag suñu jàng dañuy gis nooy ba seen dënn yi ne nii après ñu door commencé di jàng loolu la. nooy boobu ñu nooy moom la denc di jàng muy génn ba keroog muy jeex kon faw ñuy nooy itam maanaam nooyin woo xam ne bu baax la bañ di nooyee ba maanaam gémmin wante di nooy nooyin wu xóot bañ di nooy nooyin yu gàtt yu gaaw yu jege yooyu salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah waaw nee na soxna bi lay laaj kuy mokkal di continuer eh, léegi nan lay téye li wees li mu wees maanaam dafay mokkal par exemple par xisb léegi loola li ci gën a gaaw mooy li lu dee tuddee manhaj alqila as-saba par exemple <coughs> lundi da ngay mokkal benn xisib mardi nga mokal benn xisib mercredi nga mokkal benn xisib jeudi nga mokkal benn xisib mi ñaata mi ñeenti xisib vendredi nga boole juróom ñeenti xisib yi <coughs> muraaja ko hmm? samedi nga tari ko loolu benn la wala nga jël lundi ñaari xisib mardi ñaari xisib mercredi ñaari xisib jeudi ñaari xisib muy ñaata ah waaw muy juróom-ñetti xisib vendredi nga boole juróom-ñetti xisib yi samedi nga tari ko ku njëkk ki am na ñaata xisib ci semaine bi ñeent ku ñaareel ka am na ñaata xisib ci semaine bi juróom-ñett léegi léegi ki am eh, léegi lendi léegi ki maanaam ki amoon ñeent xisib ñeenti xisib yooyu lendi bu nekk daf koy moraaja lendi bu nekk daf koy moraaja ki amoon juróom-ñetti xisib juróom-ñetti xisib yooyu lendi bu nekk daf koy moraaja léegi bu ko defee semaine ba ci topp mu jëlaat lendi benn mardi ñaar mardi benn mercredi benn jeudi benn muy ñeent wala su nekkee kee muy juróom-ñett euh, samdi mu boole ko mu raajaa ajuma mu boole ko mu raajaa dima euh, samdi mu tari ko xam nga am na ñaareelu ñeenteelu xizib wala ñaareelu juróom-ñett xizib maanaam kee mi ngi si huit xizib ki mi ngi si seize xizib léegi ñaareelu semaine bi li nga mokkaloon mardi bu nekk da nga koy muraaja soo ñëwee ñetteelu semaine bi li nga mokkaloon mercredi bu ne da nga koy muraaja noonu ngay def par exemple tey ki def par fukk xisib wala wala ku doon def juróom-benn xisib par exemple su am muy salaasul ajza su amee lundi ñetti xisib mardi ñetti xisib mercredi ñetti xisib jeudi ñetti xisib mi ñaata mi fukk ñaar léegi fukk surtout ñu wàcc alquran méthode bu gaaw la ci ñoom. ajjuma mu boole fukki xisib ak ñaar yi samedi mu tari ko maanaam tey xale bu ko doon def man méthode bi euh, maanaam testé naa ko ci ay xale yoo xam ne doon naa leen jàngal te benn jour bi ñu tari rek la ñu gisante ma ak ñoom maanaam moom day jàng juróom-benn xisibam leen di mokkal ko par exemple ah ah jàng juróom-benn xisibam mardi mokkal ko juróom-benn xisibam. mercredi juróom-benn xisibam jeudi vendredi euh, euh, vendredi mu boole lépp nafar ko samdi mu ñëw tari ko par exemple léegi su ko taree samedi nag loolu mu njëkk a tari ci semaine bu njëkk bi moom lay muraaja lundi bu nekk lim tari ci deuxième semaine bi muy fukki fukki si ba ñaar la ah moom lay muraaja am mardi bu nekk. lim tari ci beneen ñetteel bi ñetteelu semaine bi moom lay muraaja mercredi bu nekk lim tari ci beneen bi moom lay muraaja jeudi beneen bi vendredi su demee ba. ba ba semaine bi fees rek daanaka day fekk jeexal na par exemple tam la même chose tam ki nga xam su demee tam ba nga xam ne mokkal na ba nga xam ne lépp ratax na lépp maase na su boobaa mën na jëfandikoo liñ ñu tuddee famille bi shawqin mooy di jàng kaamil bi ci juróom ñaari fan yi premier jour bi mu mu commencé fatiha yam maida ñaareelu fan bi mu commencé maida yam yunus mooy yaa bi famille bi shawqin Euh, beneen bés beneen bés yi mu commencé yunusa yunus yam banu israil muy suratul isra beneen bi mu commencé isra yam shuara beneen bi mu commencé shuara yam wasafat beneen mu commencé wasafat yam qaaf beneen mu commencé qaaf yam naas mi famille bi shawqin maana nga xam ne juróom-ñaari fan yu nekk day wàcc alquran nga xam ne saxaaba yi noonu doon taxzibe alquranul lay téye loolu li daf koy jagleel bés bu ne parti bu daf koy def daf koy séddale ci juróom-ñaari fan yi bés bu nekk mu am lu muy lu lu muy nafar ci li nga xam ne moom la weesu du tee nag muy jël li nga xam ne mooy lu bees. waaw hmm. ah, euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne taahadul qur'an mu ne nangeen di nemmeeku al qur'an mu ne fa walladi nafsu muhammadin bi yadi maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne bakkanub muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loxoom la nekk la huwa ashaddu tafallutan min al ibili fi uquliha mu ne alquran moo gën a gaaw a rëcc maanaam ci gëlëm goo xam ne daanaam dafa nekk ci fa ko ko mu muy daajoom ba nga xam ne fa la ko yeew kon loolu mooy xadis bi taahadul qur'ana fa walladi nafsu muhammadin bi yadi lahuwa ashaddu tafallutan min al ibili fi uquliha barakallahu fikum ma allah alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu santaat sëriñ bi bu baax a baax di ziyaare abu Taha di ko sant bu baax di ko ñaanal ci yiw yi nga xamee ni moo ñu dimbali ci ci eh, yàlla ci moom la jaarale dimbali ba ñu mën ko teewee waaye man ko amal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 canabati wali say bi ahadun yab ri an annasuunahu